ni ngeen fekkee réew mi euh, am na ñu wax ne am màgget la foo bës day metti mais di nga ñëw léegi wax ñu ñun li ñu njort ak li ngeen fekk li ngeen jot a gis euh, lan ak lan moo ci mais Pape Moussa dafay wax sànq euh, bi le ministre Sarré di wax ci conseil supérieur de la magistrature nga ne foofu la jafe-jafe bi am pourquoi. bon parce que d' abord xam nga ñëpp nangu nañ ne justice soo na ci réew mi. Mhm. donc justice bi am na problème munoo ñëw ci justice bu am problème boobu nga def boobu ngay déclenché ay procédures du. assise bi nga xamante ne réforme ak euh, modernisation léegi foog nga defaraat justice bi ba pare pour procédure yi ngay teg mën a normal. Ah, mais comme dit ça Pape ça va prendre du temps ça. waaw mais xam nga. tey jii nii euh, posé nga une pertinente question. est-ce que même procureur la même juge d'instruction la même nangam yooyu noonu la. bu nekkul yooyu naka lañ ko mën a soppee hors du conseil supérieur de la magistrature mënul nekk président Diomaye mënul ñëw nii léegi léegi léegi rek ne changé naa. Euh, kii juge mënul nekk. loolu conseil supérieur la ko mën a def te conseil supérieur boobu noonu poser problème. kon il va choisir son équipe bi juger gars yi. no maanaam euh, ah. conseil supérieur. est-ce que juge yi ñu leen fa bàyyi yóbbul leen ko ne la kat lii moo sa liggéey yaa xam noo ci def. Ah. bu boobaa est-ce que duñu àtteeg seen akulaay taalaa gis nañ fi procureur yi doon jàppal gars yi ñii fi jóge am na ñun jàpp ñoo xam ne. waaw da nga naan ñii ay temps ñemewul ñu leen woon a. xam nga nangu nga ne bi am na problème. jëpp nangu nañ ko. ñëpp waaw léegi est-ce que justice bi am problème boobu noonu ngay déclencher procédure yi. foog nga defar justice bi. foog joyanti ko ba mu taxaw tegu ci raay nga soog a mën a déclencher. parce que boo déggee euh, le ministre Ousmane Diagne miy wax euh, APS la woon mooy bi ñuy lancé assise yi. bi ñu koy interpellé sur les rapports de la cour des comptes di wax moom mooy ces rap moom rapport cour des comptes institution bu toll noonu gisu ci beneen yoon bu dul ay poursuites. mais il a mm. ajouté mm. dinañ ko jox. magistrat yoo xam ne mat nañ ko mën nañ ko am nañ expérience et ça il avait dit ce qui veut dire quoi que ni il va falloir que ñu nomee ay magistrats. yoo xam ne yaakaar googu am nañ ko ci ñoom mais le problème que j'ai mooy bu fekkee dañuy xaar assises yi ak conclusion yëpp ñu def ko pare teg conseil supérieur de la magistrature bu bees xamaguñu ba xam président da ciy bokk wala déet ñuy doog a nommer ay nit doog a engagé ay. non yenn nit déjà voilà lañ fay teg après. ndax seeni magistrat lay doon wala. ce que dit Issa Tine n'est pas complètement faux. Mhm. on risque d'avoir lay doon man personnellement dama gëm ne. oui conseil supérieur bi ni mel nii. Mhm. baax na baax na président waru cee jóg. parce que dafa am beneen obligation constitutionnelle muy garantir le bon fonctionnement des institutions. moom lañ ko dénk moom lañ ko dénk. bu amee benn foo xamante ne mënu fa dara. Mhm. jéeg maanaam nekkul conseil supérieur. magistrats yi rek ñoo fa nekk bu foofu amee problème moom nu muy garantir la bon fonctionnement. loolu magistrats yi sax dañ cee ñoom. c' ça seen bopp d' accord c' est ça moo tax man euh, pratique yi ñu doon def. di nommer selon ñoom seen i euh, euh, orientation politique loolu lañ war a seppi. c' est à dire président dafay def mais ci nomination yi appel à candidature lay doon bu ñu retenir trois ou quatre jox ko moom mu choisir bu amee problème au niveau de l' institution moom mu mën a agir. mais bu dee moom bokkul ci conseil bi dafay am une obligation constitutionnelle de réguler. te boobu noonu moom amu ci même. alors avant donc sénégalais yi dañ am si cause ñoom paase. en 30 hmm? euh, ministre est-ce que euh, li Pape Moussa di wax su ma ko déggee bu baax pour leeral dañu war a xaar ba ñu réformer le conseil supérieur la magistrature. nommé ña fa war a nekk xam ba xam président dafay duggaat wala dafay toog wala dafay génn ñuy doog a nommé magistrat yi nga xam ne ñoom lañ nar a sant liggéeyu saytu. ñii fi nekkoon nan nan la ñu réew mais loolu mooy yoon wi gën wi gën wi nga xam ne moom la ñu war a jël c'est-à-dire conseil supérieur combien de temps ça pas de temps façon ça ne prendra temps parce que euh, une fois ces réformes là ñu ñu ñu appliqué ko rek automatiquement dañuy daal di dérouler conseil supérieur de la magistrature ñun la ñu waxoon sénégalais yi mooy président daf ci war a génn mook mook le ministre de la justice loolu on le faisait parce que dëgg de bi ñu koy wax dañu ko doon wax pour gën a rendre libre les magistrats la la la la magistrature d'une façon générale waaye ñoom ci seen bopp c'est ça ñoo ne non ils ne veulent pas de ça parce qu'ils ont donné aussi des exemples des ils ont donné des arguments très pertinents ouais, des arguments qui ont dû certainement euh, Euh, jot euh, voilà man j'en ai man euh, dooguma la monsieur ministre man waxtaan naa ci ak ay magistrats bien avant les assises mhm. bi débat bi soog a jóg mhm. mais j'ai été surpris et man ci la samay position changé ba léegi mhm. que ils te disent clairement que président bu mu ci génn waaw mais dafa continuer des parce que euh, j'aime bien cette expression là magistrat genre soupape la de sécurité voilà. euh, dans cette dans ce conseil parce que bëgguñu le conseil supérieur de la magistrature nekk entre les mains de puissants chefs de cour mais, qui mais, peuvent faire ce qu'ils veulent. n'est-ce pas oui. là eh ce sont les arguments oui, ce sont les arguments des magistrats mais il y aura une réforme forcément de, du conseil supérieur de la magistrature même bu fa mm. président dese eh parce que conseil supérieur de la magistrature su ma juumul euh, ma wax su le contrôle de euh, Pape le contrôle de Pape Moussa mm. euh, ay avis lay joxe n'est-ce pas alors que. fii dañu day am préconseil d'habitude. oui préconseil. absolument loolu loolu la ñu war a réformer nag ba nga xam ne li lu muy wax day nekk décision donc ci foofu la ñu war a jëm. Euh, ba conseil supérieur de la magistrature di saytu. Euh, carrière magistrat yi de façon objective et démocratique loolu bis bu ñu ko amee rek mhm. justice bu normal la am insha allah d'accord Mame Birame du euh, ñu ñëwaat ci conseil di dem mhm. wala euh, ña nga ne parce que man jàpp naa ne ba léegi état bi APR ñoo ci ëpp de ci direction yi ak ñu cee bari ñoom ñoo ci ëpp léegi moment boobu noonu mhm. naka ngay def ba garantir téye preuve yi euh, procédure yeeg wala yenn saa sax ngay say loolu loo koy loo ah, koy garanti ah, ay kayit la di. audit ay kayit la xanaa du ñu du kayit yooyu kenn du leen lakk wala sàcc et ay kayit la càmbar la yu ay rapport yu ñuy bind la nga foog ne benn Pa Moussa bu leer na ko ab épinglé nañ ko nii day taxaw di leen xaar <laughs> non non non bon de de toutes bu sob dina gaaw mhm. bu soobee yàlla balaa yàgg Séné nañu patient rek sénégalais jarul ñuy <laughs> parax paraxee parce que euh, ba loolu baaxul am na am na ñoo am na ci luñ téye mais dinañ mam biram euh, conseil supérieur de la wax nañ ci waxati ci liñ ci xalaat